mu ne nee nañu noppi day am na juróom-yaari njariñ yu ràññikoo ràññikoo ba jëkk mooy boo téyee soo làmmiñ rek mel na ne yaa ngi jàmm yàlla te sonnoo ndax yëngaloo benn cir ñaareel bi boo téyee làmmiñ day mel ne waaj nga ba jekk donte jekkoo ndax noppi gi ci boppam rekk taara la waajtaay la doonte sax yorewoo dara lu ñuy waaje bañ naa kee dafa wàcc ñetteel bi noppi day day tax ñu wekk la doonte doo buur amewoo dara lu tax ñu war laa wegit boo noppee rek ñu wekk la ñeenteel bi noppi day aar noppi day aare nga xam ne boo noppee mel na ne jël nga tata joo xam ne kenn mënu koo bëtt warali ko sa bopp dara mënta jàll si loro la juróomeel bi noppi day tax boo wax nooy rëccoo ko balu nit ñi naa leen jéggal ma de baal ma de sama làmmiñ moom ma rëcc rek xam naa li ma wax waruma ko woon wax boo téye sama làmmiñ lu mel noonu la dal juróom bennel ba mooy boo nopp yaa ngi nafal malaaka yi ànd di bind say wax ak say jëf boo nee pat rek doo leen sonal yaa ngi leen di nafal juróom ñaareel bi nag noppi ci boppam day sutura li wax naa ku wax feeñ waaye ku ne pat rek moom waxoo dara dara donte amoon nga ay sikk te sax nit du faral di ñàkk ay sikk sikk yooyu day làqu ba yàlla suturaal ko kenn du ko gis kenn du ko xam ci gàttal daal nee na noppi moom ëmb na mboolem yii àdduna yu alaaxira